الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل على عباده جميعا بإرسال رحمته المهداة إليهم أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين حضرات السادة والسيدات حضرة الشيخ وكيل دعدن الشيخ محمد الأمين إبراهيم يس أصحاب السماحة والفضيلة المشايخ العلماء ضيوفنا الكرام أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام معطر بأريج هذه الذكرى العظيمة ذكرى مولد نبي الرحمة ورسول الهدى عليه أزكى صلوات الله أزكى صلوات الله وسلامه أهنئكم بهذا العيد المجيد وأرحب بكم في مدينة الشيخ معقل الأمن والهدى وأشكركم على شد الرحال وحمل عصا التسيار لمشاركتنا هذه الفرحة العظيمة الفرحة برحمة الله للعالمين ومنته على المؤمنين من كانت محبته أصلا لهذا الدين ولا دين إلا بها فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي الصحيح أنه أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر هذه هي رب عزتنا هي الغاية التي نحن نحس خطى الأنفاس واللحظات لندركها فليسعى كل منا إلى أن يكون من المحبة بحيث يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن يا فلان أو الآن يا فلانة وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها انتشلت عبدا كريما من وحل أم الخبائس فقد شرفه الله بما أودع في قلبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستحق بذلك أن ينتصب الحبيب صلى الله عليه وسلم محاميا عنه مدافعا عن عرضه أمام أصحابه وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها تصل بين المحب والمحبوب برباط لا ينفصم فقد ورد بالصحيح أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال الرجل ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وجاء في الصحيح أيضا أن أنس بن مالك قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن كنت لا أعمل بأعمالهم وإلى هذا المعنى يشير الشيخ إبراهيم رضي الله عنه قصوري عن الطاعات يجبر كسره بمدح بل فالمحبة فالمحبة لي عمل فأحببت طه المصطفى بطبيعتي قد زادني وقد زاد حبيا بدا كاملا رضا وأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضا أيها الجمع الكريم أيها الأحباب يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا وسهلا على مائدة المحبة في عيد المحبة فعليها نجتمع هنا من أغراق شتى وقبائل شتى وأقطار شتى لا نسب يجمعنا إلا نسب محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأعظم به من نسب وسبب ونحن هنا إذ نلتقي على مائدته لتدارس سيرته الشريفة واستذكار شمائله المنيفة والتعبير عن الفرح به فإننا لا نأتي بجديد ولا نحدث في الدين ما ليس منه لقد احتفل الكون كله قبلنا بمقدم هذا الضيف العظيم المبجل الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد احتفلت به السماء وأهلها حين منعوا الجن والشياطين من التطفل على خبرهم فنصبوا لحراسة أبواب السماء شهبا تنتظر كل مسترق للسمع احتفلت النار حتى ترمز للجلال فخمدت أدبا وإرغاما لمن كانوا يعبدونها من دون الله واحتفل الماء حين غاضت مياه بحيرة تساوى تبكيتا لمن كانوا يسيئون استخدام نعمة الماء واحتفلت الحجارة حين أرغمت أنف الأصنام التي كانت تنصب للشرك فانتكست خجلا من قدوم مصباح الهدى وشمس توحيد الله ومعرفته وباب نعمته ورحمته المهداة للعالمين إننا نحتفل بذكرى هذا الحدث كما احتفلت تلك الكائنات ونحتفل بهذه الذكرى امتثالا لأمر ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وأي فضل أعظم وأي رحمة أوسع من نبي الرحمة وشفيع الأمة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكي يكون احتفالنا محبة صادقة وطاعة منضبطة بضوابط الهدى الهدي المحمدي ولأن المحب لمن يحب مطيع فإنني أدعو نفسي وأدعوكم بهذه المناسبة العظيمة إلى أن نتواصى بتقوى الله ومراقبته لكي نجمع بين الحسنين فيتنور باطننا بنور محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشرق ظاهرنا بجمال الاقتداء والتأسي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال ومن مقتضيات ذلك أن نحذر أن نحذر أن نحذر من من يشوب احتفالنا بالمولد بأي عمل غير مشروع مثل انتهاك المحرمات واتباع الشهوات المذمومة والاختلاط بوجه غير شرعي وذلك ما حس عليه الشيخ حيث قال في رسالة مشهورة من أراد أن يكون معي في حالي فليسلك طريقي بالأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر نواهي في الظاهر والباطن والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضاة الله ورسوله أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المظهرة الشريفة باقتحام المحرمات وترك المأمورات فيشهد الله وأشهدكم أني بريء منه اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأوصي كذلك كل الأحباب أينما كانوا بوحدة الصف والتعاون والتعاضد ونبذ شتى أنواع الخلاف وكل ما يوصل إلى التباغض والتحاسد فضرر ذلك على صاحبه أكثر من ضرره على غيره فأهل الله هم الأصفياء مع الله في معاملتهم وقلوب وقلوبهم فلا يرضون أن يرى الله من قلوبهم سوى ما آه، يرضيه ويرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم وأساس ذلك صفاء صفاء ونقاء القلب تجاه الإخوة في الفيضة والإخوة في الطريقة والإخوة في في الدين آه، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحبابنا أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب لي في هذا المقام وهو مقام حمد وشكر ونصح أن أجدد الحمد لمستحق الحمد على ما أولى بلدنا هذا وسائر بلداننا من آلائه التي لا تعد ولا تحصى ومننه التي لا تحد ولا تستقصى ومنها أن جعل السنغال بمدينة الشيخ التي نحن فيها وبمدن الإشعاع الروحي الأخرى مشرقا من مشارق الأنوار وقلعة عظيمة من قلاع الملة الحنيفة السمحة وهذا مقام شكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله نتوجه فيه بالتحية لحكومة السنغال لما ألفته من تعظيم حرمات الله والشكر موصول بشكل خاص إلى السيد الرئيس ماكي سال جزاه الله خيرا ووفقه لما يحب ويرضى والشكر لكل قادة الرأي من مشايخ الطرق المتصوفة العلماء العاملين والجماعات الإسلامية والسياسيين بمختلف توجهاتهم والفاعلين الاجتماعيين على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة شعبهم ووطنهم وندعوهم جميعا بالمناسبة إلى الاجتهاد والمصالحة بين السياسة والأخلاق وذلك باحترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية ومسله العالية وأود أن أتوجه كذلك بالتحية والشكر إلى دول الجوار وسائر دول المنطق منطقة والعبور التي سهلت مرور الزوار ليصلوا إلينا معززين مكرمين وهي فرصة للترحيب بجميع وفود الأحباب القادمين من دول الجوار في مقدمتها نيجيريا موريتانيا غامبيا غينيا مالي الجزائر والسودان وكاميرون وتشاد وانجلترا وامريكا وبوركينا فاسو وفرنسا وغينيا ومن دول اخرى كثيره لهؤلاء الاحباب الذين حضروا معنا ولاولئك الذين حبسهم العذر اقول مرحبا بكم جميعا فالدار داركم والبيت بيتكم وسويداء القلب منا وحط رحالكم تقبل الله زيارتكم ولا ضاعت اقدامكم ولا بد من شكر خاص نزجيه للمملكة المغربية الشقيقة لما عهدنا منها من مؤازرة خاصة لنا ولكل إخوتنا في الدعوة والزب عن بيضة الإسلام أسأل الله الله أن يجازي الملك محمد السادس ويوفقه ويعينه على ما فيه الخير للإسلام والمسلمين كما أن الشكر موصول بأسماء معانيه لإخوتنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لما لمسنا منهم من تقدير واحترام وتعاون على أمر أمتنا الإسلامية آه، وخاصة الإخوة في وزارة الأوقاف ورابطة العالم الإسلامي لما جسدوه من الحرص على توطيد عرى الأخوة معنا بالإسلام ووثقوه بما وقعوا معنا من اتفاقيات في سبيل ذلك تحت إشراف وتوجهات الملك آه، ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان جزاهم الله خيرا ووفقهما وسدد خطاهما وأود أن أغتنم هذه المناسبة ليدعو جميع الأحباب وكل المسلمين إلى بذل قصارى الجهد في سبيل نصرة القدس ومؤازرة إخوتنا في بيت المقدس وإكنا في بيت المقدس تظل قضيتهم قضية حية في نفوس المسلمين حتى يأذن الله بتحرير أولى القبلتين وسان الحرمين الشريفين من أيدي الغاصبين المحتلين أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من واجبنا جميعا أن نستلهم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتأسى بهديه ونبذل أقصى جهودنا في سبيل إشاعة جو الإخاء وبسط رداء السلام في شتى أوطان الأمة وخصوصا في مناطق النزاع بين الإخوة في الدين أو الوطن حتى نضمد, نضمد جراحنا ونلم شملنا ونستعيد قوتنا ونعيد أمتنا إلى سالف مجدها لتقر بها بنا عين نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لذلك إلا بالعيش مع صاحب هذه الذكرى وهذا العيد والتخلق بأخلاقه حتى يكون كل واحد آه، آه، منا آه، يجعل حياته صورة مصغرة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا أنهي كلمتي دون إشارة إلى بعض المشاكل المحلية التي تتمحور فيما يلي إن البلاد تقدم على مشارف موسم الحصاد الزراعي لهذه السنة بعد جهد جهيد من السادة المزارعين وندرك يقينا أن السلطات الحاكمة للبلاد تولى اهتماما بالغا تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة وتبذل جهودا مضنية وجبار لمساعدة هذا القطاع المهم في اقتصاد الوطن وهذه الشريحة العريضة ممن ينشطون من الشعب السنغالي بإصلاح الأراضي وزراعتها وهم يشكلون نسبة مقدرة في سوق العمل السنغالية ويسهمون بشكل مباشر في تنشيط الحالة الاقتصادية للبلاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للوطن وللمواطنين وعليه ندعو السلطات إلى بذل مزيد من الجهد في العناية بهذا الموسم الحصادي الذي يعلق عليه المزارعون آمالا كبيرة كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالحرث والنسل ويديم نعمه علينا ظاهرة وباطنة ويلهمنا شكر آلائه ونعمائه حتى يكون مردوده رابحا ومفيدا لهذه الشريحة المقدرة ولسائر أبناء هذا الشعب الكريم المعطاء حتى يتسنى له سد باب الهجرة غير الشرعية والارتماء إلى أحضان المجهول وما فيها من أخطار جسيمة على النفس والمال من خيرة الشباب هذا الوطن ولا سبيل للسلامة من هذه الأخطار المحدقة والحفاظ على كرامة الإنسان في ضمان عيش له ولمن يعول يعول إلا بالعودة إلى إحياء وإصلاح الأراضي والعناية بها الحالة السياسية والاجتماعية المشحونة حاليا بساحة الداخلية قد بلغت أوجها والبلد يقبل على استحقاقات سياسية مهمة تتطلب منا معشر السنغاليين الغيورين على بلادهم الدعوة إلى التكاتف والعمل لأجل الاستقرار وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا والزود عن حماه والحفاظ على مقدراته وعلى الإنجازات الدينية والاجتماعية والسياسية آه، آه، السلمية والتي حققها عبر تاريخه المجيد توجه أكثر أكثر من أربعة ملايين من أبنائنا وبناتنا إلى قاعات الدرس هذه الأيام التي تشهد فيها البلاد انطلاقة السنة الدراسية مع صعوبات جمة في آه، نقص الحاد للكادر التعليمي جيد والبنيات التحتية اللازمة للمؤسسات التعليمية إن شهدت طفرات مقدرة بفضل مجهودات الحكومة إلا أنها في حاجة ماسة إلى عناية خاصة لأنها يتوقف عليها مستقبل شباب هذا الوطن في التربية والأخلاق خاصة القيم الدينية التي نحن في أشد ما نكون من الاحتياج إليها قبل التعليم والتكوين المهني في تخريج جيل عالم ومثقف ومهني يستجيب للازم من متطلبات العرض والطلب للسوق تلبية لاحتياجات الضرورية لبناء وتنمية الوطن الكوارث الطبيعية ممثلة في الفيضانات التي تعرض لها بعض مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة المسجلة آه، خريف هذه السنة وهي في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله علينا نسأل الله لا آه، يحولها إلى نقمة تضيق بها حياة العباد وندعو السلطات إلى مزيد من الوقوف مع المتضررين وإغاثتهم ومد يد العون لهم وكل من له القدرة على إغاثتهم فهي مسؤولية علينا جميعا وثوابها من الله سبحانه وتعالى كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن سانع آه، معروف إغاثة المل... صنائع المعروف إغاثة الملهوف غلاء أسعار المواد المعيشة بصورة فاحشة وضيق ذات اليد لشريحة واسعة من الشعب وإنه لا يخفى علينا حرص واهتمام الحكومة المنصوبة مؤخرا في وضع مواجهة الغلاء الفاحش ومحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على كاهل هذا الشعب المعتاء المجد في تحصيل قوت يومه والمشاركة في بناء تنمية وطنه في مقدمة مهمتها وأولياتها الكبرى مجاراة مع مقتضيات العصر الحاضر ورغبة منا في تجديد علاقة الحضرة مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية لمزيد من الفعالية في إطار العمل الإسلامي المشترك وعملا بقول مولانا الشيخ أحمد التياني بسير زمان كسر قررنا إحياء اتحاد الإسلام الإفريقي الذي قام بتأسيسه مولانا فضيلة الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم يسر رضي الله عنه وأرضاه في بداية السبعينات من القرن الماضي والقصد من تفعيل هذا الاتحاد المذكور في وقتنا الحاضر هو السير على خطى مؤسسه وخلفائه الكرام والاقتداء به وبهم رضي الله عنهم والاستعداد التام لما نستقبله من أعمال علمية وثقافية واجتماعية والاتحاد المذكور جمعية تهدف منذ إنشائها إلى خدمة الإسلام في إفريقيا وبالأخص في السنغال وإلى تسهيل سبل التقارب بين المسلمين في جميع دول العالم وتقوم بتشجيع التعليم الديني لمسلمي القارة وتكوينهم من أجل غرس روح التفاهم والوفاق والتعاون بين أفراد الأمة الإسلامية كما ورد في النظام الأساسي لها والجدير بالذكر أن هذا الاتحاد جمعية تحمل طابعا تربويا وتعليميا وثقافيا محضا ومقرها مدينة كولخ المحروسة من كل سوء بإذن ربها فإعادة هذه الأهداف السامية وتحقيقها أصبحت من الضروريات الملحة نظرا لما جد ويجد من أحداث مواكبة من أحداث مواكبة لهذا العصر الراهن وبعد مشاورة مع السلطات المعنية وأصحاب السعادة والسماحة من أعيان هذه المدينة وكثير من المنتمين لهذه الحضارة من مختلف الدول وبعد أن حملت مسؤولية الرئاسة العامة للاتحاد آه، للاتحاد كوني خليفة لهذه الحضارة يتحتم علينا إعلامكم بأنه أولا تم اتخاذ قرار على اختيار الأشخاص الآتية أسماءهم أعداء في مجلس إدارته إمام الشيخ تجاني علي سيسى إمام مسجد الجامع نائبا لرئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي الشيخ محمد الأمين إبراهيم يس نائبا لرئيس الشيخ محمد القريشي الشيخ إبراهيم عضوا في المجلس الإداري الأمين العام لاتحاد مجالس برلمانات دول الأعداء بمنظمة التعاون الإسلامي الشيخ محمد عبد الملك شيخ إبراهيم يس المشرف العام على جائزة الشيخ إبراهيم لحفظ وتجويد القرآن الكريم كما تم اختيار ابننا البار سيد أستاذ بابكر عمر نيان أمينا عاما للاتحاد الإسلامي الإفريقي يدير مكتب, مكتب أمانته العامة وأعداء وأعداء متعاونون معه وسوف يتم الإعلان عن أعداء المكتب آه، التنفيذي الجديد للاتحاد المذكور والهيئات التابعة له خلال الأيام المقبلة وذلك بعد التشاور مع المعنيين بالأمر إن شاء الله ثانيا قد اتخذنا قرار إطلاق إدارة الأعمال الكبرى لمجتمعنا هذه الحضرة الإبراهيمية الكبرى من حيث نسبة النسمة وتزداد زوارها آه، في جميع المواسم الدينية على مدار السنة ولم تعد تتحمل بنياتها التحتية آه، آه، ومرافقها العامة أعداد الضيوف الوافدة إليها من جميع أنحاء العالم ومن أجل تزويدها ببنيات تحتية حديثة معاصرة وجديرة بمستواها وباسم مؤسسها مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عنا به أرضاه ولإنجاح هذه المشاريع قررنا تعيين السيد إبراهيم يس بايسيس معروف بايسيس رئيس شركة سيسكو مسؤولا عن أعمال والمشاريع الكبرى للحضرة وهم معه من المعاونين من أبناء هذه الحضرة من الخبراء والمتخصصين ومن يراه مناسبا لإنجاز هذه المهمة ذلك لأجل التعاون في تنمية وتعمير مجتمعنا وقد فوضنا إليهم تنفيذ الخطط ودراسات آه، وكافة الخطوات اللازمة لتحقيق مشاريعنا ولذلك أتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في هذه المهام النبيلة ويشجعهم على المثابرة على العمل في خدمة مجتمعهم وأبناء وطنهم هذا والله نسأله في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الذكرى العطرة أن يغمر قلوبنا وقلوبكم جميعا بمحبته ومحبة حبيبه وبمراقبته وأن يستعمل جوارحنا وجوارحكم في طاعته وأن يبارك فينا وفيكم ويغدق علينا وعليكم من الخيرات والنفحات والفتوحات الحسية والمعنوية وأن يحقن دماء المسلمين ويفرج كروبهم ويلم شعثهم وأن آه، يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويقلع فيه العصاة عن المعاصي وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يكلل سائر مساعينا بالنجاح التام ويتقبلها منا قبولا حسنا ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما والله نسأل أن يجمع شملنا بكم عاما عاما بعد عام على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان حال قول حالنا قول الشيخ ما قد أبت خائبا من ربي بل كلما أبت شكرت أو بي هذا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم الشيخ محمد الماحي يس خليفة صاحب الفدا رئيس العام للاتحاد الإسلامي الإفريقي لولو تشيغاتل آه، gàttal بخونا bi dañ koy gàttal mooy lettre bi nga xam ne moom la sëriñ bi xalifa cheikh Mouhamadul Maahi bind mu jëm ci xadara bi jëm ci taalibe yi jëm ci gan ñi jëm ci jullit ñi fuñ mën a nekk gannaaw nuyoo bu tedd tatagal gan ñi nga xam ne gan yonent yàlla Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam ci eh, ron kerak Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñi nga xam ne jugee nañ ci eh, ci barab yu fasantikoo pour ñëw fekkee bés bi nga xam ne walla bés yi nga xam ne yépp ay bési leer la ay bési mbégte la ay bési eh, kontante la bési dundal la lislaam bés yi mbokkoo la moo tax muy wax xadis yonent bi sallallahu alayhi wa ne kenn ci yéen euh, bési beesal mbëggeelu yonentu la sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu bi nee na kenn ci yéen du gëm lu may batama ko bëgg gënalee boppam ak waajuram ak i doomam ak ni ñëpp Seydina Omar ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma gënal ñëpp ba mu des suma bos bopp yonentu bi ne goo gëm fee gënalu ma sa bopp Seydina Omar ne ko fi ne yow yonentu yaa ma gënal sama bopp yonentu bi ne ko léegi Omar nga door a nekk ku gëm mu ne ñi góorgóorlu ci bés yi ba àgg ci mbëggeel googu nga xam ne kenn ku nekk rek ci ñun dana xeeyoo yonentu bi ne la al aana yaa fulaan dana tegtale màggaayi bés bi ak màggaayi mbëggeel yonentu sallallahu alayhi wa la anas nettali ne ab araabiyu dafa ñëw ci yonent bi ne ko kañ la yowmal qiyaamati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo ko xadul mu ne ko xaduluma ko julli yu bëri xaduluma ko or yu bëri waaye maa ngi ko xadul mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeeli yàlla bi ne ko nit ki moo ki bëgg ñooy dëkkaale ëllëg yowmal qiyaamati Anas mu ne saxaaba yi kontaanuñ ci lislaam kontaante gu em ni gannaaw kontaan gi ñu am ci diine lislaam kontaante gu em ni kontaan gu ñu am ci bés boobu masuñ koo kontaan ba yonent bi waxee ne nit ki moo ki mu bëgg ñooy dëkkaale ëllëg yowmal xiyaamati Anas wax ne ñun bëgg nañ yonent bi bëgg nañ Ababakran bëgg nañ Omar ñu ngi yaakaar yàlla pang ñu ànd ak ñooñu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci xutabaam wax na ne lim gën a yaakaar moom gën ko yaakaaral taalibe موي حديث جوجو نبي صلى الله عليه وسلم وخنا المرء مع من احب موتاخ موي اندي اي اي اي بيت يي تكتل مبغيلي شيخ ابراهيم تي نبي صلى الله عليه وسلم وخنا الا فش الا فشهدوا اني احب محمدا وابغض كفرانا كرا كنار تلهب احب الي من وليدي ووالدي ونفسي واهلي بل همالي سيحسب سيد لن من بغنا ينتبي صلى الله عليه وسلم تدما بن kéeféer comme ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñeent kum nekk ñett kum nekk ci yow nga bëgg nit bëggoo ko lu may ngir yàlla bañ dellu ci kéeféer comme ni nga bañee ñi sànni la ci safara loolu màndargaay gëm yàlla la waaye bàyyi wax ne ndama bëgg yonentu moo ma gënal sama bopp gënal ma samay njaboot gëmal gënal ma samay waajur gënal ma bépp alal boo xam ne nii am naa ko ñi man ma koo limal kon Eh, dafay fàttali rek ne mbooloo mi am nañ royukaay ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi yaatal bépp gan ñi nga xam ne ñëw nañ nga xam ne Medina dëkk ñëpp la ñëpp eh, ñoo ko moom Medina googu nga xam ne bàyyi waxoon na ne maqilal amni wal huda la dafay des di barabu njub di barab bu kóolute mu ngi tatagal mbooleem gan ñi nga xam ne jugee nañ ci barab yu fasantikoo ngir ñëw euh, bokk ak ñun bés yi nga xam ne bési fàttaliku jikko yonantu bi la sallallahu alayhi wa sallam bési fàttaliku juddu yonantu bi la sallallahu alayhi wa sallam fàttaliku ay jaaruwaayam la bés la boo xam ne feet la pour àddina yépp mbooleem mbindeef yàlla yi feetu nañ ko ndax ba yonantu bi sallallahu alayhi wa juddoo lépp rek manifesté na pour wane ne xew-xew bu mag am na safara yi nga xam ne Faris dañ ko doon jaamu mu tàkk juney at fay na tamas sa fay bu xayratu saawa niis na loolu yëpp eh, xërëm yi nga xam ne ni ñoo ngi ko doon jaamu lépp jattu na amul benn buur boo xam ne fanaan na ci kaw lal bés boobu lu may lalam daanu na kon àddina yëpp moo feetu juddu yonent bi sallallahu alayhi bu ñuy feetu loolu dañuy def rek li nga xam ne nii moom lañu ñu war a def kontaan ci xéwali yàlla ndax yàlla moo wax ne na ngeen eh, ci yàlla ak i xéewalam qul bi fadlillaahi wa bi rahmatihi ngëneel yàlla ak ak yarmaande yàlla kontaan leen ci loolu te xam nañ ne ngër yarmaande yàlla gi gën a màgg yarmaande yàlla bu gën a màgg mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kontaanee ci besam duwul rek lu may eh, eh, eh, topp ndigali laaye jooju mu nekk loo xam ne dañ koy def gis ngeen ni mu tëddee nii nga xam ne léegi la mu Mouhamadul Amin jàng mawlid gi nga xam ne dox ci xaatir ci bayt yi nga xam ne moom la mawlid gi làmboo rek loolu jaam mën naa nekk sa yóbbal ren jii ba déwén def dénkante ragal yàlla fuuglu yàlla nga xam ne xol yi danañ ci xewenee waaye jëmu itim danañ ci xewenee ñi jàngee ci roy ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi roy ci ay jikkoom roy ci ay waxam roy ci ay xaalam mu ne moytandiku lépp loo xam ne nii dafay jaxase lu baax li nga xam ne nii moom la gàmmu làmboo loolu nag buñ koy wax mu ne daf ñuy delluwaat ci lettre yi maulana cheikh ibrahima radiallahu anhu di wax ay taalibeem ci risala risala boobu mu wax ne war na ci taalibe bu nekk mu jël ko wëttu ko di ko jàng bët set ne ku bugg a nekk ak moom ci xaalam mu ne ku bugg nek ak man ci sama xaal da ngay sóobu sama yoon di wax li may wax di jëf li may jëf di topp ndigal yi mooy ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi ci lu feeñ ak ci lu nëbbu di mar di am cofeel ngir àgg ci ngërmaande yàlla tabaraka wa taala ak ngërmaande yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne amaa képp koo xam ne yaa ngi askanu ci man ba pare di toggoo lu xaraam di uuteeg li nga xam ne charia bu laab bi moom la indi di xëtt yi charia bi aaye di ko def di bàyyi ndigal yi bàyyi ne maa ngi seedaloo yàlla te maa ngi leen di seedaloo ne man dañ naa ci kooku ne yow yàlla maa ngi lay seedaloo ne dañ naa ci li lu ñu di def wax laa wax ñi xam ne dañuy uuteeg ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mooy tindiku fitna jot leen wala mbugal mu màgg jot leen yàlla wax ne tuub leen dellu ci yàlla yéen way gëm yi mu ngi ooteaat loolu it mu mu ngi dénk képp koo xam ne mbépp taalibe yi ñi benn le seeni saf nañ nekk benn ci dimbalante jàppalante sànni mbooleem xeeti uute yi nga xam ne bakkan rek la ndax bañanteeg kañaanante lor la goo xam ne nii ki ko def moom lay njëkk lor ci ki mu koy jëmale ci moom ñooñ yàlla mooy ñi nga xam ne sellal nañ seen xol sellal seen jëflanteeg yàlla tabaraka wa taala gërëmuñ lu may yàlla gis seen xol yi mu nekk xol yoo xam ne dara du ci nekk lu may li gërëm loo yàlla tabaraka wa taala ak li gërëm loo yonentu yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa sallam te loolu asaasam eh, sukkandikuwaayam mu ngi ci xol bu sell nañ sellal mu ne euh, jubluwaay yi ci mbokk gi ci fayda bi ci mbokk gi ci tariqa gi ci mbokk gi ci lislaam ndax alquran wax na nañu jullit jullitay mbokkam yonentu bi sallallahu alayhi wa wax ne kenn ci yéen du gëm bëtam buggalee mbokkam mu bëggal boppam moo tax mu ngi oote haat ahbaaba rasulillahi sallallahu alayhi ne maa ngi euh, am kontante bu baax di beesal sant yàlla mi nga xam ne moo xeeyoo ñi sant ko ci mbooleem xéewal yi nga xam ne nag yàlla xéewal nañu ko bokk na ci xéewal ñu sénégal gii nga xam ne medina cheikh ibrahim gii ci la nekk ak dëkk yi nga xam ne xawaadir yi nga xam ne yépp ñi ngi am nekk nañ Zawiya cheikh ibrahim nekk foofu mu ne mu ngi sant yàlla ci barab yooyu nga xam ne yépp barabu jumukaay la barabu leer leerlukaay la di gindi ci lislaam ma ne moo tax waxtu wi barab bi barabu sant la mu ngi sant ku santu nit ñi du sant yàlla moo tax mu ne mu ngi sant euh, gouvernement Sénégal ci seen taxawaay bi nga xam ne ñi ngi ko am ci taxawu xew-xewi diine yi ci taxawu euh, askan wi moo tax mu ne mu ngi gërëm président Macky sàll di ko ñaanal yàlla moo fay ko xiw yàlla dëppale ko ci li nga xam ne moom la bëgg te moom la gërëm may ko tawfiq ci liggéey senegaal waaye mu ngi gërëm mbooleem kilifaay diine yi ak kilifaay tariqa yi ak kilifaay aada yi ci senegaal ak politiciens yëpp ci seen jubluwaay ci lépp loo xam ne nii dana jëmee senegaal ci kanam di leen oo ñoom ñëpp ñi bàyyi seen xel ak góorgóorlu ci dëppale politik ak maslaaye réew mi waaye dëppale politique ak jikko yu rafet yi nga xam ne nii moom la ñu suñ diine ñun oo te moom ci lañ mën a muccee loolu nag mooy ñu sàmm dénkaane yi diine yi sàmm jikko yu rafet yi nga xam ne nii dëgg-dëgg Sénégal am nañ ci ndono gu kawe boo xam ne buñ ko sàmmee mun nañu mucc mu ne mu ngi nuyu mbooleem euh, réew yi nga xam ne nii ñooy euh, euh, frontière ak Sénégal nga xam ne taalibe yi jugee nañ fa yombalal nañ leen seen yoon pour agsi mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di ñaanal yàlla ba tey tim fursa la beneen yoon pour mu tatagal mbooleem gan ñi nga xam ne jugee nañu ci dëkk yi fasantikoo yi nga xam ne tuddoon nañu leen léegi ci biir euh, xutba bi mu ne ñooñu nga teew ñëpp mu ngi leen di gërëm ak ñi nga xam ne ay ngànt moo leen tere mën a teew mu ngi ñaan yàlla ñu bokk ak ñun barkey bés bii mu ngi gërëm tim eh, nguuri eh, Maroc ci jëmmi eh, amirul muminina Malik Mohamed Sadis nasarahullah mu ngi koy gërëm di ko ñaanal ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci jullit ñi ak lislaam naka noonu mu ngi gërëm nguuri mamlaka al arabia saoudia yi nga xam ne gis nañ ci ñoom taxawaay ak gestu pour joxaat euh, pay bi gëddëm ak jëflante ak ummal islaamiya jëflante boo xam ne nii dafay dellu njëriñam dafay dellu ci umma bi yépp rawatina wazaaratul awqaaf rawatina rabitatul aalam islaami ngir gis na ci ñoom taxawaay buñ taxaw pour dëgëral relation bi nga xam ne nii moom lañ am ak ñoom te loolu euh, dëgëral nañ ko ci signé ak moom benn convention boo xam ne dafay tegtale rek ne moom saoudia pare nañ pour jàppalanteeg xalifa bi jàppalanteeg xadrat cheikh ibrahim radiallahu anhu beesal relation bi nga xam ne lañ amoon ak cheikh ibrahim radiallahu anhu moom mu nekk seen buntu pour jëflanteeg ulama afriqiya ci dekkal dimbale daawa islaamiya ak tim faj li nga xam ne mooy ittee ñi moo tax mu ne mu ngi oo mbooleem soppe yi ak mbooleem jullit ñi ñi eh, jox seen kem kàttan ci itim eh, gës gëstuwaat xadiyat Palestine Quds taxawu ko ba nga xam ne dana génn ci loxoy noon yi ba dana nekk lu lu gore ba nga xam ne dëgg dana dellu nekk ñeexal ay ñooñam comme ni nga xam ne Cheikh Ibrahim noonu la noonu la ko ittee woon dëgg waxtu wu nekk gannaaw loolu ba tey mu ne ma war nañoo jumoo jàngee ci eh, juddu yonent bi sallallahu alayhi wa royee ci njub def suñ mbooleem kàttan ci siiwal mbokkoo ak siiwal jàmm ci mbooleem réew yi réew yi réew yi lislaam yi ak yu lislaam rawatina dëkk yi nga xam ne ay xëccoo ak bëjante mu nga fa am ba nga xam ne danañ mën a faj bépp feebar yi nga xam ne nii mu ngi dugg foofu ci xiiroo ak ŋaayoo mën nañoo dimbanikoo lislaam dimbanikoo dellu ci jàngaate yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu loolu nag duñ ko mën a am lu may ñiy dund ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di jël ay dénkaaneem du roy ci moom ba xam ne ku nekk rek da ngay jéem a def euh, sa sa dund mu muy jumoo ci dund yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam boobaa euh, da nga jub te boobaa da nga jubal mu ne duma jeexal lu may ma tudd yenn ay euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu ñaa koy dund réew mi euh, ñu ngi jugee ci fi mu ne nii nawet bi nga xam ne nii jeexagut waaye dëgg-dëgg euh, sant nañ yàlla ci nawet bi waaye gis nañ tim ne nawet bi mujj gi am na ay jafe-jafe fi ne ndox mi toll na foo xam ne nii mu ngi lor ñu ngi ñaan yàlla ci barkeeb guddi gi ci barkeeb toogaay bii nii ñi ngi wax cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mu ngi teew mu ñaan yàlla ñëpp a ngi wax amin ci ñaanam googu yàlla euh, taxawal ndox mi bañ soxlaat ko waaye sëriñ bi mu ne mu ngi fàttali euh, gouvernement bi baykat yi di leen fàttali seeni jafe-jafe yi nga xam ne nii dund nañ ko ci jamono ji nga xam ne moom lañ toll mu ngi oo ñëpptim tim ñi delluwaat ci suuf si delluwaat ci mbay mi yi nga xam ni nii ci la ñuy dundalee eh, suñu réew ba man cee eh, dootuñ aju ci kenn mën dundal suñ bopp mën dundal sax ñeneen dëkk bi tim mu ngi ci eh, ci ci problème yi politique yo xam ne nii mu ngi ëmb ay biir yoo xam kenn xamul lan la waaye ñu ngi jublu ay jubluwaay yoo xam ne lépp mu ne mu ngi ñaan sénégalais yi nga xam ne fiir nañ ci seen réew ñoom ñëpp ñi oote jëm ci nekk benn liggéey ngir lépp loo xam ne mooy euh, may Sénégal jàmm mooy may Sénégal istiqraar mooy euh, may diine ji mu mën a continuer di joxe ay njëriñam li soxla ci social li ñu soxla ci politique yépp ñi man koo am man koo amee ci jàmm naka lañ ko doon amee ci li passé yépp ci taarix la ko mayewoon rek moo koy maye mu ne euh, ndaw yaa ngi jublu si fi mu ne nii ci ubbitey école bi loolu yëpp tin euh, soxla na ay taxawaay yoo xam ne nii yu ràññeeku la ndax euh, euh, ëllëgi réew mi mu ngi aju rek ci ndaw yi ak seen jàng ak seen njub ak seen diine ak seen jikko yu rafet loolu yëpp mu ngi ci bàyyiloo xel ñi nga xam ne nii ñoom ñooy autorité yi am na ay kawaaris yi nga xam jaar na fi ay faydaanaat ay ndox yooyu nga xam ne ñu ngi ko tudd yooyu yëpp mu ngi koy tudd di ñaan yàlla loolu yëpp mu mujj ci e, jàmm mu ootim ñi nga xam ne ni ay acteur lañ mën a dimbale ku nekk rek ñi nga mën a nga dimbale leen ci wàll googu ndax yéen tubi sallallahu alayhi wa wax na ne sanaa ayul maarufi taqi masaari assuui def lu ñaaw dafay fegal dafay feg e, e, dafay feg Eh, deexin def lu rafet dafay fekk deexin deexin wu ñaaw mu ngi wax tim ci xee ci eh, njëg yi nga xam ne dafa cher waaye gis nañ eh, gouvernement bi ñu ngi jël ay matukaay pour jéem a mënanteeg loolu loolu yëpp tim mu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla yombal loolu ànd ak mu ne dëppoog li nga xam ne moom la jamono laaj ak xadra bi beesal seeni relation ci mbooleem association yi ak muassasaat yi xiyaatil islaamiya yi ci aalam bi moo tax mu ngi bëgg a beesal euh, jëf ci kaw loolu ak doxee li jamono bi laaj mu ne moo tax mu ne mu waral beesal ittihaad islaami ifriqi bi nga xam ne Baay euh, sos na ko euh, gannaaw ñaar fukki at ci gannaaw bu mu sosee ansaaru diin mu ne jubluwaay bi nag ci tafil ci beesalaat ittihaad islaami ifriqi boobu ci waxtu wi mooy dox rek ci tànk jéegu yi cheikh ibrahim radiallahu anhu ak jéegu yi nga xam ne ay xalifaam ci gannaawam jéegu nañ topp ci loolu noonu pour pare pour jëf mbooleem jëf yi nga xam ne luy dundal xam-xam la luy dundal culture la luy luy dimbale social la ittihaad boobu li ko tax a jug mooy xidma mooy liggéey lislaam ci Afrique rawatina ci senegaal ak yombal yooni jëflante jegehante jullit yi ñoom ci seen biir ci mbooleem àddina bi moo tax dafay euh, taxaw ci euh, encourager njàng diine ci mbooleem jullit yi euh, continent bi ak former leen ci saxal rooxa déggoo ak bennoo ak dimbalante ci diggante euh, xeet bi comme nim loolu rotee ci euh, nizaam bi nga xam ne moom la ittihaad boobu am mu ne nag ittihaad boobu dafa am taaba tarbawi maanaam yaraate ak jàngale ak euh, xee nit ñi loolu moom mooy taaba am maanaam du du du lo xamne politique ko taxajuk ndax Baye waxon na ci ne ne harakatu laysat siyasiyatan wala narda li ahad an yastaghillaha li aghrad siyasiyati rod na ci waxam ju foofu kon loolu lay serign bi di be salat fi wax ne chaise bi nak Medina Kaolack la nek batay mu ne gannaaw diisoog ñi nga xam ne ñoom la war a diisoog ci loolu ak ayaan Medina ak ñu bëri ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi askanu ci xadara bi ci duwal yu uute gannaaw buñ ko xenoye moom responsabilité nekk eh, xalifa xadara bi war na ci moom mu ne mu xamale ne jël na xaraar pour tànn ay nit ñoo xam ne ñooñu dañuy nekk ay aada di nekk ay eh, eh, liggéeykat ci majlis idaara boobu mu tudd imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé imaam masjidul jaame ne naiban li rais al ittihaad tudd Cheikh Mouhamad al Amin Ibrahim Niass ba tey ne naiban li rais al ittihaad Cheikh Mouhamad al Qurayshi Ibrahim Niass udwan fi l majlis al idaari tudd Cheikh Mouhamad Abdul Malik mi nga xam ne moom moo dèjà mu ngi amee jaayizat Cheikh Ibrahim Dawli li xifz wa tajwid al Quran comme tim mu ne mu ngi tànn doomam bu baax muy Sayid Oustaz Babacar Omar Ñang Oustaz Babacar Ñang bi ngeen xam mu nekk amin am li ittihaad islami ifriqi nga xam ne moom mooy secrétaire général bi ak ak yeneen aada yi nga xam ne danañ def taawun ak moom ñeneen yi mu ne danañ leen tudd buñ àggee ci eh, taxawal bureau bi ak hayaat yi nga xam ne nii ñoom ñoo topp ci biro bi ci bés yi nga xam ne mu ngi ñëw si gannaaw waxtaan ak diisoo ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ma maaniyin bil amr eh, ba tey mu ne mu ngi ngir liggéey yu mag yi nga xam ne gros yi nga xam ne mu ngi ci eh, xadra bi dëkk baa ngi nit ñaa ngi yokku te suuf si tàllaluwut kon war nañoo yokku loolu ak e, mawsim yi nga xam ne moom la def ci sene bi dëkkuwaay yeeg jumtukaay yi nga xam ne fi la ñuy nekk mën a nit ñi ndax gis nañ gàmm gu mag gi bi mu tawee rek fii nii jafe-jafe xawoon naa am te war nañ mën a am Euh, taxawaay yoo xam ne ni bu jamono demee te at yi jublu si xam nañ ne at yi taw la boobaa dañ mën a dékku loolu mu ne ci kaw loolu ak ci kaw beesal mu ne mu ngi euh, tànn bàyyi siis def ko mu nekk responsable jiital ko ci li nga xam ne moo aju ci euh, gros œuvre yi ci Médina ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a ànd ak moom ku ci nekk ak sa jagle pour mën a taxawu taxawaay boobu nga xam ne nii mu ne dëkk bi euh, soxla nañ ko jamono laaj na ko ngir dimbalante ci lépp loo xam ne nii dafay euh, euh, dundal société bi mu ne jox na ñooñu ndigal pour ñu taxawal ay plan def ay jàngat yoo xam ne nii yi ñuy teg ci yoon la teg ko ci xam-xam dimbalanteeg boroom xam-xam yi nga xam ne tim ñoom ku ci nekk ñi seet lan la xam-xamam màcc ñi taxawal teg projet yi nga xam ne mooy projet xadra bi balaa dara xew door a seet nag fan la ñuy jaar ba mën a euh, matale loolu mu nekk loo xam ne dafay nekk njëriñ pour dellu ci euh, xadra bi yëpp mu ngi ñaan yàlla tabaraka wa euh, yàlla barkeel barkeelal ñu guddi gi eh, nangu mbooleem jëf yi mm, te mu ngi am yaakaar ci nangu ñaan gi di eh, di eh, wax la bàyyi waxoon rek maa xattu ubtu aiban xaaiban min rabbi bal kullama ubtu shakartu aw bi ñu ngi yaakaar ne la bàyyi waxoon masuma dellu ci sama borom fekk perte ci la nga xam ne moom laa doon ñaan maanaam lam ñaanoon rek Euh, daf koy am te rawatina ci guddi gii nga xam ne gis naa bàyyi fu mu wax ne masta ñaan yàlla dara ci guddi gii guddi yonentu bi sallallahu alayhi wa ci buntab yonentu bi lu may yàlla na may na ko ko yàlla na yàlla def loolu ku la am wantum bi xeer assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu